salaamaaleykum mbokk internet yi Dakar instant ñu leen nuyu di leen jaajëfal leen jox seen wàccuwaay ci bis bu màgg bi bis bu sell bi di bis bu dellu si ci eh, gannaaw gàmmu gi muy gàmmuwaat waa kër Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni di ko amal fii ci Gueule Tapée ñu toog ak sunu kilifa Baye Ablaye saw moom mi nga xam ne moom la suñu borom dogal mu sabab bis bi ñu fekk ko fi mu toog salaamaaleykum kilifa ki siyaar nañu. salaamaaleykum wa rahmatullah eh, ñoo ngi jégalu ci kàddu yi sax waaye fekk ne. Euh, bés bi gàmmu la te na ci jullit bu nekk bu bésu yonent bi alayhi salaatu wa salaam ñëwee nga feeñal sa pas-pas ah, ren nag sax li tax ñu indi ko ci bés bi dafa fekk sëñ bi dafa woote woon sa kilifa nag bu doo bokk moo tax ñu jàpp bés bi dellu waaye ñaar fukki at ci ren ñu ngi def bés bi ku ñu wax nag ngaala kan moo ko tàmbali woon moom rek ci pas ak ay bokk taalibe mu dëkkal bu ñu demee ba gis na nag bés baa ngi màgg a ah, te yàlla dafa dogal nag fii ci Gueule-Tapée ñun ñi la fi sëñ Tuubaa teg ci lañu bàyyi suñu yëtte ànd ak ñoom di ko taxawee sëñ Tuubaa nag taw feex gu nekk at mu jot mbooloo mi yokk yokk ci pas ak ci sellin te ñu gis ne liggéey baa ngi dox ndax loolu rek lañ ci saaku muy dundal guddig yonent bi ndax Serigne Touba dafa wax ne bu dellu see nañ ko nañ ko dundal ci sunna nañ ko dundal ci njàngum alxuraan ak xasida ak dafay teraanga jox ko nit ñi loolu rek mooy bés bi daal Eh, ba tey ni leen ko waxee mbokk yi ci bisu gàmmuwaat bi nga xam ne moom la def fii ci eh, Gueule Tapée waa kër Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni kilifa gi jaar nan la dëgg la ñu ngi leen di jaar bu baax mu jëriñ ñu ngi leen di sant bu baax di rafetlu liggéey bi tamit waaw ndaxte message bi mu ngi jàll waaw te message bi jàll gi muy jàll tamit ci liggéeyu sëriñ bi la moo ñu ngi leen ciy sant bu baax di leen gërëm Ahmadou Fall Cissé laa tudd di trésorier wu diwaanu Bamba fépp maanaam fas yéenee jël kàddu wax ak yéen ci turu secrétaire général bi ba tey moom daf fi teew teewal fi mbooloom ñi tënku ci diwaanu Bamba fépp teewal fi tamit jëmmam teewal fi responsable moral bi waaye teewal fi ay jëwrinam muy Serigne Ousmane Mbacke borom baax maam Thierno moom it teew na ak leeru jàkkaraay ñu ngi sant bi gërëm. waaw noonu nga ko waxee am na solo leeru jàkkaraay yi xam naa ne ci kanam tuuti sëñ Abdou Khoudous dana jël sëñ Axma it kazaalika ak ñeneen ñeneen ak ñeneen diwaanu Bamba fépp ci wàllum jeunes yi ñu xamal nañu yéen bokk ngeen ci ñi nga xam ne ñoo ko jiite yow nga féetee fii ci Gueule Tapée naka ngeen di dund doxee loolu. waaw ñu ngi ciy sant bu baax rek ndax da boo seetee diwaanu Bamba fépp continuation wu diwaanu sulbul jawahir fi ak Badi la woon. ndaxte 95 la diwaan bi sosu 97 ñu structuré ko nga xamante ne mën nañu wax 97 ba 2019 ba Cheikh Ahmadou Kara Mbacké di ko soppi di ko def diwaanu mbaam fépp gaa yi ngi yëngu cellules yi mu ngi dund mbokku taaliba yi ñu ngi yëngu comme ni ñuy yëngoo ndaxte lii yàgg na ci édition yi la bu dee fii ci Gueule Tapée tamit ñu jàpp ne zone la parce que Gueule moom moo ëmb euh, zone 1 moo ëmb Gueule Tapée ëmb Médina ëmb Fass ñuy daje ajuma bu jot di yëngu lii nii bokk tamit ci li nga xamante ne moom la see Ahmadou Kara Mbacké Noreyni li liggéey ci jeunesse bi mooy lan masalan jamono ji nekk di dajale tout tànk yi di def ci ñoom dëgg di def ci ñoom kalimatul haq di def ci ñoom laa ilaha illallah muhammad rasulullah léegi liggéey boo nangu boobu moom mooy waral mbokk taalibe yi di daje ci gox yi loolu moom moo dem ba jur lii gàmmu gi di ko def ci ndigalu borom sikóor moo tax nga gis leeram yii te foo leen gisee da nga xam ne ndigalug sëriñ bi la ñuy dox kon li bu dul woon sëriñ bi wala bu dul woon ndigalug sëriñ bi ak li sëriñ bi def ci mbokki taalibe yi ñu koy xel ci yu mel nii ñoom kon duñ fi teew kon diwaanu Bamba fépp mooy continuation bi diwaanu sulkul jawahir fi axbaari sarair la mbokku taalibe yi doon liggéey ci diwaan bi bu njëkkoon sëriñ bi la mu defoon ci gox yi loolu la nekk di dundal di ko yeesalaat ba léegi ba mu benn benn benn liggéey ñuy àndandoo ak secrétaire général bi ànd ak bureau diwaanu Bamba fépp bi di liggéey ci ndigalu borom Sikor yi orientation yi jamono ju ne ci moom lay jóge bu ñëwee ñun dañuy exécuter rek sëriñ bi lan yaakaar moom la ñuy déglu heure bu ne def leen lii ñu def lii bu ne def leen lii def lii bàyyi leen lii ñu bàyyi lii ci loolu lan ne waaw di sant bu baax. Ah, ba tey mbokk fii ci Gueule ñu toog ak kenn koo xam ne kenn dootu ko présenté kenn kenn dootu ko wanale kenn kenn dootu ko sang bi nu ngi lay ziar. ñu ngi leen di delloo ziar Malick ñu ngi lay ziar bu baax a baax yaa ak équipe bu Dakar instant bi nga àndal yëpp di leen nuyu di leen ziar yéen moom mën naa ne kenn dootu leen présenté ci man ndax mën naa ne sama waa kër ngeen jërëjëf. ndeysaan ni mu ko waxee am na solo te noonu la demee Dakar instant yëfam la Dakar instant këram la waa Dakar instant ak njabootam lan sëriñ bi tey nu gis gisu gàmmuwaat bi waa kër Cheikh Ahmadou Kara Mbacké ñoom ñëpp teew fii ci Gueule Tapée ngir màggal bis lu waral loolu waaw ginnaaw loolu dañuy ziar suñu yaakaar tey ak ëllëg muy Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te ànd ak wér ak njaboot Seydina Ousmane gépp ak mbokk taalibe yëpp Gueule nag defe naa bu ñu fi teewee kenn di wax lu tax ndax lu jiitu li lépp Seydina Ousmane Gueule Tapée day cëram Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni def fi waxtu yi mu fi def def fi at yi mu fi def ñu nit ñi nga xam ne ay jaam jaamaatam lañ tàmbalee ci Seydina Ousmane borom mbaax Serigne Khalil maam Thierno Sani mi fi jóge léegi ba ci suñu jëmm ju xeebu ji Gueule Tapée la ñu yaroo kon nag bu Gueule Tapée wootee rek dañuy wuy si rawatina loo xamante ni bi nii yàgg nañ ko def at mu jot bisu gàmmu lañ ko daan def waaye ren gàmmu gi Cheikh Ahmadou Kara da ko woote woon Daaru Moxti toftaloon ci ñaanuk Seydina Ousmane moo tax ñu jàpp bi bis bi dellu muy ngénte gàmmu ngir ñu amal cant yi nga xam ne daan nañ ko amal at mu jot ci njiitul Serigne Ablaye Sow mi nga xamante ni bi nii mooy jëriñ ju mag ji di jëriñu mbokk taalibe yi. sëñ Axma ku ko wax Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni ñoom loo xam ne seetlu nañ ko muy. cheikh moom bu gisee cheikh Ahmadou Kara day tàggoog sagoom bu ko gisee mu doon taalibe ñor ko moo waral loolu ak lan ngeen di gisee cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni ni ko waxee rek sëñ Axma bëkk néeg la garde corps la ah sikar katam la sëñ Axma polyvalent u cheikh Ahmadou Kara la waaw yaa ngi may yóbbaale ci sëñ Axma gi sax waaye ñun ay jaam jaamaatam lañ Axmada Jadid moom polyvalent wu Cheikh Ahmadou Kara la mu ngi ci mélode bifin mi ngi ci Kara sécurité mi ngi jëysun mi ngi fépp dara waralu ko nag lu dul xam ni li fi Cheikh Ahmadou Kara mayewul day jaay du lu doom di donn mbaa loo xamante bi ni privilège la déedéet Cheikh Ahmadou Kara noo taqee ci moom rek noonu ngay jariñoo ci moom ndax moom dafay ku distingué dafay kémtaanu Serigne Touba dafa ber Serigne Touba moo tax Serigne Touba ber ko kon nag ñun dañoo jaay suñu njuróol jëndee ko taalibe nekk sur le terrain ak mbokk taalibe yi di sikkurulaa ak ñoom di ànd ak ñoom ci liggéey bi lépp lu sëriñ bi di digle duñ nangu kenn jiituñu ci ndax sàkku ngërëmam képp képp moo nu ñor te sàkku ngërëmam moo ñu fi bàyyi waaw. sa duma daanal te waxuma ci. son bu doy waar bi ngeen boole yaa ja jaamaan baylaat génnee ko ci wàccaay màggal gi ñu gis ngeen boole ci waa kër Mariama maanaam yonent yàlla Isa mu doon son bu dal. waaw euh, bu ngeen gisee ñu def loolu dara inspiré lu dul Cheikh Ahmadou Kara ndax bi sëriñ Touba woyee Fussi jagleel ko Mariama ak doomam Isa Cheikh Ahmadou Kara da koo dundal Cheikh Ahmadou Kara dafa dox ci dialogue islamo-chrétien. ndax kat jamono yi daan bay armeel yi ci njiitu borom daaru nóoré ni jëwriñ ju mag ji ndigal li amoon Cheikh Ahmadou Kara exclure wuñu woon benn armeel mënoon nañ ne dañuy yem ci armeelu jullit yi kese waaye dañ ci daan boole yu chrétien yi loolu dialogue islamo chrétien la mbënn mi tamit daanuñu taamu naan kër gi kër jullit la kër gi kër chrétien la kër yëpp lañ yemale woon kon nag bu Cheikh Ahmadou Kara jëlee ci Foussy woy ko ñun ñu référé wu ci loolu gis li muy dox ci dialogue islamo-chrétien moo tax nag man ak Abdou Lahad ñu amal son boobu jox ko jaam ñi ci màggal Touba leneen li ñu leen di waajalal nag mooy topp ci ginnaaw Cheikh Ahmadou Kara di déglu ndigalam fu mu ñu orienté rek ñu jëm foofu ndigal lum ñu jox rek ñu defee ko ni mu ko bëggee incha allah. Alabama!